damaa tëdd sama néeg ba sama téléphone sonné fekk maa ngi ko branché ci salle ba sama doomu jigéen daal di daw fekk oo nañ ko ci guddi gi te ay une heure du matin lañ ko ko envoyé mu nee na bu dawee du ñëw sama buntu néeg mu delluwaat ci néegam ba si yàgg ay 6 di du matin sama téléphone sonné mu daal di profité ak man daal di daw ko ci bi man ko la xew mu ne ma lewo moo man ko ban lewo mu ne ma lewo fay man ko ban lewo fay mu ne ma lewo fay bi nekk suñu kër Morolan mer nii laa yëgee deewu rew kii lewo fay lewo sama kanam la juddoo grayo mu nekkoon xale bu ndaw léegi papa ji jël ko ñu indi leen fii ci seen maam seen maam moo leen yar seen maam gaañu na lewo nekk ku jàmbaare ku bëgg ay famem koo xamante ne bàyyiwul kenn amul kii sama mbokk amul kii sama ka boo amee soxla tey nga oo lewo téléphone dalay na coupé coupeel boo coupé mun la maa ngi lay Orange Money léwo mën naa ne léwo morala yëpp ñoo am tey lu metti tey jii bésu tey jii ki def léwo lii tey tey tey jii bu ñu ko xamoon tey kon kooku duma kenn kenn kenn waaye ki ko def lii yal ko yàlla nit te yàlla feeñal ko barke Yeesu Kirista léwo doon na ko jàmbaare doon na ko baax doon na ko bëgg ñëpp mu def concours am bii jàng jàng jàng ba am li mu am lépp mu dem jël jabar macha allah Léwo yal na yàlla yóbbu aljana Léwo soutien de famille la Léwo ñu wéeru woon ci moom dañoo bare ci famille bi rakku papam yii Léwo ci ñoom la ñu ci moom la ñu wéeru woon. ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni mënuma leen lim ñëpp ci ci loxo la ñu yëngu ñu bari amoon yaakaar ci loxo ndax nit koo xamante ne la fu mu toog kenn du ngat coose lay indi ci doomu aadama yi ba mu jeex tax ba 15 jours bii ñëwee ci doon ba ñu jënd suñu nuróole leewa mu ne xale yi ba bale leen bayal bi dama leen di def surprise surprise bi naka lii la lay jënd nañu nuróole ba def nañu lépp pour pertaal 15 jours bii di ñëw surprise bi mu ñuy defal ndaka lew du fekkee surprise dafay dem ak surprise bi lii xew nag diggante bi 15 bi dootul am ndax duñ ko mën a duñ ko mën a supporter bés 15 jours bi bu jotee ñu ngi koy ñaanal depuis ba lewo gaañoo ba tey ñu ngi koy ñaanal bés bu nekk ñu ngi koy ñaanal ku nekk yaa ngi dugg sa néeg di ñaanal lewo soo fekkee ak ku keneen fekkul ku nekk yaa ngi koy ñaanal soo yeewoo yaa ngi koy ñaanal balaa ngaa tëdd yaa ngi koy ñaanal foo toog yaa ngi jàpp sa saple di ñaanal lew ndax mu dem aljana te dinaa dem aljana bu soowee yàlla. depuis keroog bi lii xewee ba kenn añul kenn lekkul kenn naanul kenn nelawul itam ndax lew moom benn valeur la ci ñun ñoo amul benn problème saa bu 15 jotee rek lew ñëw indi otoom mu gaare ko lépp a ngi ci biir nag du añ du reer ku mel ne man de sant naa ko bu baax a te ñu te ñu bari sant nañ ko voilà ndax. fi ñëwee 15 août ba balaa 15 août jeex ñun daal ati lu waay bëgg rek moom lu waay bëgg rek moom moom daal sant nañ ko quoi. sant nañ ko daal ba fa sant yéen moom daal li ñu ko ñaanal daal yal na ko yàlla yërëm quoi.